que yéenay dooleel émission bi wax dëgg yàlla euh, euh, jërë ngeen jëf euh, bokk na ci salon de beauté bu baax boobu nga xamante ne dama cee am fi faaw ma dem ci ah bi bi mhm. mi ngi ñëw salon de beauté bi spot bi baa ngi jeex na incha allah. sponsor yi tax Aïssatou baal ma dégg nga damay fàtte. Ah, non eh, non dañuy dañuy dañuy bon c'est-à-dire que doo doo commence par soi am di ci am nag la ñuy la ñuy la ñuy ñëw démarrer moom. doom day aadamoo waaw. Ah, ah, ah ma yem de <laughs> génnal ci am di ba mu set ba mu set am di yow génnal ci am di rek am di semaine bale passé ba léegi yow yaay def yow star la fi de di mooy bës noo ko dundee noonu depuis loolu tu fais l'actualité mais am di noo dundee li nga def ak lan nga ci jublu def ko karaj coupé balaa ñuy ñëw ci parce que yow am di yow fii ak ay weer weer weer a ngi nii yaay nekk actualité de <laughs> am di ba léegi am di lan la lan la d' abord da nga commencé am fii de mémoire. nañ la yërëm kon euh, euh, euh, mooy li ma la wax. Mhm. tey dama ñëw pour waxtaan ak sénégalais yi. Mhm. tey dama ñëw pour waxtaan ak sénégalais yi encore une fois. Mhm. lu tax ma ñëw pour waxtaan ak ñoom mooy Bijou moi je suis un artiste comédien. du ma soudeur du ma menuisier du ma d' abord lu tax ma duggee noonu wax. dama seetlu koor yëpp koor yëpp ñii amul benn musiciens yi dañoo organiser wu seen bopp ba nga xamante ni ñoom fuy playback rek da leen gis ñu fay leen ay cinq millions cinq millions da nga leen fay xam nga ci dara yéen ñuy toog ci plateau yi xam ngeen ci dara mais da ngay gis artiste comédien cachem bu néewee ba néew ba néew ba néew mënu am sax cinq cent mille ban artiste comédien nga fi gis mu tabax fi ay immeuble amul ban artiste comédien nga gis buy tukki dëggu business amul ban artiste comédien nga gis boo xamante mi ngi dawal oto cinquante million amul te pour temps ñun ñi nga xamante ne su région yi nga xamante ne ñu ngi fii suñu dëkk yi ñoom bu ñuy dem boo demee ak ak ñoom dañ la ñuy gis dañu nekk à kon sénégalais yi kon nañu delloo njukkal si réew mi nañu delloo lu ñu moom mm-hmm. li ñu moom mooy lan nañu jox bañ moo ko taxaw ci tele bi di wax bu la mhm. neexee dugal ci internet bi ñaan kooku yow la mais bul tilimal suñu der mais am de est-ce que nekkul duñ liy wax ne uuda nu mu la gisee rek la lay oolee waaw moo tax mu ne la ñun dañoo am ay xale yoo xamante dañoo nekk suñu ginnaaw mhm. xale yoo xam ne dañoo nekk suñu ginnaaw yoo xamante ñun lañ yaakaar mag ñu njëkk ña liggéey nañ li ñu liggéey ba pare mu rafet mhm. kon ñun buñ ci tolloo bay waaja dem ay fin kon na rafet kon ça veut dire que da nga bëgg wax ne yéen am na ñu koy yàq. am na ñu koy yàq. ci naka te loolu duñ ko nangu. ci naka la koy yàq. lu ñu koy yàqee mooy comme ni voilà li ngeen di gis li ngeen di gis bëri na. Mhm. li ngeen di gis ci showbiz bi bëri na mais dama jug rek uniquement rek. xëy na li ma introduire moo baaxul mais sama xol moo jug mais est-ce yi duñu wax ne am de est-ce la bonne personne pour wax loolu parce que a wax waaw est-ce a yow yow parce que bu ñu lay gis sa yenn sortie wala sa yenn spectacle dañu gis am di ci beneen anam mu am di day ñëw déconné tooñ fii keroog ñu gis la nga xeex fii est-ce ne am di mii du moom moo war a wax lii parce que moom maanaam kuy déglee sa ngaay da ngay fekk nga set dëgg la xeex boobu sax dinaa si ñëw Mm-hmm. mu leer ci bopp sénégalais yi tamit loolu dinaa ci ñëw dama koy off dinaa dina leer ci bopp sénégal mm-hmm. encore une fois moi je suis comédien boo leen xoolee boo leen xoolee coow li sax man di ma doon bëggoon développé mm-hmm. yéen ñaar la yéen a indi coow li yéen ñaar mm. bokk nga si ñu indi coow ndax lan ndax ba ma wootee tag mm. dama ne tey dama woote en tant que Amdy wootewu ma pour ñëw fii tey sama xol jeex na trop wootewu ma pour ay indi ay ah, ay wala indi ay kii mhm. mais la ma la ma déclenché loo waxu am di jarul dóor sa doom fukki siwu ma si du ma si dóor sama doom mhm. waxu am di dof la boo xamante day taxawaale si biir nit ñi sa papa nawlawu la mhm. foofu nag ak ni ma mel sama papa ku ne xam ko foofu nag moom damay pétaal ah kon maal tàkkal yaa ma tàqaloo bisu yow nag maa ñaaw ngemb yow yaa ma tàqloo loolu loolu bokk na si loo xamante ni tey jii sama communication sax mm-hmm. dafa yàqu <laughs> ma am de en tant que am non dama koy disde parce que ku ne yàlla tey sama pap fu mu toll am de billaahi wallaahi tallaahi bi waaw parce que la bi bëgg dëpp carte gi non du ko dëpp dama la teew ñu nataal maa ngi ñëw géwél laa mën naa wax ba saaga la day te doo ko yëg <laughs> donc rek xam naa am di su dëgg euh. donc am di Euh, billaahi wallaahi tàllaahi maa ngi yëkkati sama maa ngi la koy di la baalu àq ci wax jooju nga fàtte ko léegi te tontu ci question bi. waaw pare tontu question bi question bi ngay tontu de. te question bi ma laajaat na ko ma laajaat la ko. waaw mooy est-ce que dañu gars yi duñu wax ni euh, euh, yow. yaa war a wax loolu maanaam kuy dig la sagaay day fekk parce que fekk gën a ngand loolu mais garaawul waaw d'accord mais baal ma ak wax ma baal naa la baal naa la nañ jàll ci leneen de waaw léegi nañ jàll ci leneen doo ci waxaat waaw non ndax di nga toon tey émission bi nañ a day dafa lewetal waaw daa ko ba d'accord déglu rek dañ lay déglu rek déglu rek ah. déglu rek ñun duna am mutuel hmm. yéen ñun ñun comédiens yi hmm. duna mutuel hmm. am nañ mutuel Arcos a ngi fi. Mm-hmm. jàppal euh, bu ngóone nduur bi lu mu tuddati. Euh, Sodaaf mm-hmm. Sodaaf mi ngi fi. Mm-hmm. toog nañ. madame Faye woo ma. recevoir ñu première dame. recevoir ñu. man Serigne Ngagne père bu xar. Euh, bari na ak kan ñoom ñuq ma ma ñoo ñoogu. Kombe Kombe ñoom. def naa Cheikhou Gueye ci la bokkoon Sanex ci la bokkoon. Mhm. Euh, euh, bari woon nañ mhm. bi ñu recevoir ñu toog ku ne di wax. Mhm. madame Faye ne moom bëggatul gis artiste comédien yi di ñaan dimbal ci tele yi ak rajo yi. wax le ma li ngeen bëgg ma defal leen ko ñi ñii ñi wax waxu ay production ñii di wax ay waxu kii ma loolu intéressé wu. madame Faye li mu wax mooy nee na jël leen ngeen def mutuel. ibbi leen compte ngeen def mutuel. ma may leen xaalis ngeen def ci yéen artistes yi ku ci liggéey chaque weer nga dugal ci même bu dee vingt mille xaalis boobu bu jur bu beneen artist feebaree ngeen mun ko ci ji faj mu bëgg mu bañ a siw. fu loolu mujjee. fu mu mujjee amul continuité. non ñu foofu fu mu fa ñëw ko. amul continuité parce que ñi ñëpp dinañ toog wax ko. Mm-hmm. ñi ko Serigne Ngagne. nañu waroon waroon nañu léegi ñu mi ngi mi ngi puudaru mi ngi ñëw comprendre nga la loolu waroon nañ ko waroon nañ ko fekkee. Mm-hmm. amul continuité léegi nag man ma taxaw ñun dañoo am jabar am ay doom nekk si dëkk bi liggéey Sénégal nag lu bari liggéey Sénégal lu bari ku mi di may ma lu ne lu ne ci àddina ku mi di may na ma ko kon loolu su ma ko gisee milieu bi ñu bëgg ko tilimal dinaa taxaw défendre te Baye Fall encore ma ma wax ci waxu Baye bii rek laa ci wax pare naa ci Baye Fall sama non sama mbokk la déglu leen sama mbokk la ñu bokk ci wax na ko ci biir wax mhm. ñoo bokk si laykan bu mu dëkk kër Baye Fall kër bi mu juddoo mhm. ak sama kër papa ñoo takkaloo sàkkat moo leen sàkkat moo moo leen moo leen séparé mhm. kon kooku am naa sañ-sañ bu bëggee yàq euh, loolu deret moo ma sotloo da nga sot noonu. damay sot parce que loolu bëgguma ko. sotoo xam nga déglu ma sot la loolu sot la ma bisu déglu ma sot wala yaa eh, non eh, Amdi eh. waaw damay déglu dama posé question damay wax mm, ah Amdi da nga fay da nga da nga posé question dama lay wax ñun am nañ droit wax ñun waaw am nga droit wax mm-hmm. yaa ngi comprendre la am naa droit ne ko Baye Fall fi nga dugg moomoo ko mais loolu Baye ko fi mais man deret a ma sotloo. waaw mais am am yow affaire bi est-ce que amul anguille sous parce que yaa ngi naan def nañ suñu enquête da nga ñëw pour enquêter loolu nga wax da nga bëgg ñu tegaat audio yi. waa déglu ma <laughs> déglu ma yow xam nga ne ma su ma defee enquête xam nga su ma deful enquête xam nga. nan laa xamee. waa déglu ma damay après laa xam xanaa damay déglu est-ce que comprendre la léegi nag donc loolu noonu bu amee. Mhm. Baye taxaw wax li muy wax noonu loolu daf ma kay naqarlu. dama koy naqarlu. yow feebar bi nga weddi wala lim ñëw di di di. non weddi ma feebar bi. am de yaa àndi suuros enquête bi nga wax ne ci biir wax wax da nga ne dama def enquête pour xam. Mhm. dama enquête xam naa Baye Fall munoo yaa ngi encaissé boobu ba tey encaissement yi na arrêté li lay faj matul cinq cent mille. Mhm. yaa ko wax. maa ko wax te te te tey daa ko gën a mën a waxaat. Ah dama ci daw naata tey laa ko gën a mën a waxaat. waaw ah, tey laa ko gën a mën a waxaat s'il te plaît du ñu recadré waat tuuti waxtaan bi c'est important parce que li ñuy wax nii mhm. dafa am solo bay Fall am na droit wax ni dafa feebar mhm. Mhm. ndax nit bu feebaree dëkk ci réew xam ne su waxee ñu dimbali ko am na droit wax waaw mais bu mu accuser kenn quoi yow accusation bi ngay ngay ñaaw ma tuuti rek parce que dama bëgg wax bi leer. Mhm. am di dañuy Marième Faye Sall daf leen woo mais tu sais am na artistes yoo xam ni kenn du leen woo ci dara ndax xam nga loolu yow. yow de man lu la xaw ma fu ñu am di bala yow mii. te ñi woo yàbu ma leen a non am dafa liggéey ci dëkk bi de. non kii moom li mu liggéey ma ñëw non non non li mu liggéey moom ñu ngi ciy ñëw. waaw dafa liggéey ci réew mi ba nit ñi comprendre ne que lii fii ñu ko teg ak li mu war a wax mais dama ko déglu ma attentivement parce que li may wax du waxi am di. Mhm. am di dafa liggéey ci réew même bu defee erreur tamit liggéey na ci réew xëy na communication moo baaxul rek moo tax ñuy wax mais la mu wax. non keroog sax la communication baax.